leen di nuyu bu baax tey ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha suñu borom gën fee yàggal te gën koo defal wér ba li mu yéene liggéey sëriñ bi yëpp mu àggale ko ci sagoom te ñaanu ko moom di nuyu waa Touba ci kanam yëpp ci njiital Sëriñ Abdoulahi Mbacké ak mbooleem kilifa liggéey bi ak ñu nekk ci biir réew mi ak ñu nekk ci bitim comme ni nga laajee li nga laaj euh, Touba ci kanam moom li muy def lépp social la te mooy dëkk bi li nga xam ne manqué na ko ci ci saayir wala li nga xam ne nii war na fee am te amagu fi ñu ciy taxaw moo tax murid bu nekk di ñuy laaj murid bu nekk ñaar téeméer euh, weer woon at mu jot mu nekk dus mille francs gis ngeen réalisation yi nga xam ne jot na ko ñu ko def ci dëkk bi ci biir loolu nag dafa am benn commission bu ñuy tuddee commission sociale mu doon ab jaayante boo xam ne nii jógewut ñaar téeméer yi nga xam ne moom la ñuy laaj par weer waaye ginnaaw bu ñu joxee ñaar téeméer yi ba nag ku ci nekk yaa xool la nga mënal sa bopp nga di ko génne di ko def ci commission bi di tàmbalee ci dërëm ba loo kon lii ñuy def ci waa weeru koor gi xëy na weeru koor day gën a fës waaye ci la commission bi sax ci mboolem at mi mboolem at mi yëpp boo ñëwee ci seen Touba Ca Kanam boo fa indee soxla dañ lay orienté ci commission sociale moo xam da ngaa wéradi moo xam da ngaa bëgg ku la jëndal ay ordonnance moo xam da ngaa am problème mu loo dundee moo xam da ngaa amul foo dëkk yooyu yëpp ci ab jaayante lay lay bàyyi ko jaayante boobu nag mi ngi tàmbalee woon ci ay barkeelu yu daan jël di ko yóbbu ci daal daara kaamil ji nekk jumaa ji di ko jàppalee suñu bokki taalibe yi fa nekk nekk foofa donte ñoom sàkkuwuñ ko ci ñun waaye ñun ñoo amoon coobare di di barkeelu ca loola loolu nag moo dem ba barkeel ba mën a doon lu yaatu nii bu ko defee nag lu mel ne koor gi bu ci accès dañuy gis ne ci weer yëpp la def lu baax baaxe waaye rawatina ci weeru koor ndax yi ci dajee ci fépp la def lu baax baaxe waaye rawatina ci dëkk bii di Touba moo waral dañuy def benn recensement boo xam ne dañuy dugg ci askan wi def ko juróomi équipe am ñoo xam dañ leen di sant ñu recensé biir corniche bi am ñoo xam dañ leen di sant ñu recensé bitim corniche bi képp ku recensé ba noppi dañ lay jox benn ticket seet magasin ba gën a jege yow ci biir dëkk bi def nañ fi juróomi magasin ci sowu bi penku bi gànnaar bët saalum ku am na benn magasin centre bi tamit ñu def benn magasin loolu mooy social ramadan bii di jublu waaye at mi yëpp noonu la commission sociale di liggéeyee ndax nii ñu ko defee ci koor gi bu ñu demee ba ne ginnaaw suba la korite danañ defaat beneen dox boo xam ne dañuy dem ci biir borom kër yi nekk ci biir dëkk bi daaw jëloon nañ ci lu tolloog 772 borom kër pour jàppale leen ci wàllu korite gi euh, kon loolu mooy liggéeyu commission sociale bu ñuy jub koor gi dañuy def benn réunion boo xam ne dañuy wax laaj laaj ci bokk yi ñaata borom kër gi jàpp ne mën nañ leen a war a mën a jàppale ci ren jii. ku ci nekk joxe ab lim euh, daaw ñu ngi joxe woon 3000 borom kër waaye yàlla dogal na mujj nañ dem ba 3470 ren jii bi ñu waxtaanee itam li ñu wax mooy nañ fexe ba lu mu néew néew ñu jox mille borom kër mille borom kër nag boo leen bëggoon a jox ku nekk benn saaku ceeb mu 50 kilos mille personnes mi ngi doon cent 150 tonnes ceeb di toll ci 60 millions ndax ceeb saako ceeb bu nekk jamono ji mi ngi coûté 20000 3000 personnes boo leen bëggee jox ku nekk 5 kilos suukar loolu mi ngi lay coûté 15 tonnes di 10 euh, millions 710 mille 3000 personnes boo leen bëggoon a jox ku nekk 3000 francs yu mu transporté euh, li li nga koy jox loolu mi ngi ñuy mi ngi mi ngi lay coûté 9 millions. 60 millions plus 9 millions plus 710 euh, millions 10 millions 710 mille. loolu loolu soixante dix neuf millions sept cent dix mille la te loolu mooy trois mille personnes yi rek te am na juróom-ñaari daare kaamil yoo xam ne dañ faa war a dem muy daare kaamil daaru Muxti daaru Xudóos te sëñ soe bu daaru Minam daaru Salaam Mbàkke Xewar ba Njaareem war nañoo dem ci naa Maam Jaara bi war na ñoo dem tamit ci jumaa ji ci ndog yi nga xam ne Muxaddamatul Xidma ñu ngi koy def am na tamit liste tente boo xam ne nii dañ fa dañ fay nekk di xaar ndax dañoo ñëw fekk niñ doon bind mat ñoo ñëpp ku ci doole ko waate nag day mel ne da def plus de quatre-vingt quatre ndax li ma la wax nii rek mooy trois mille personnes yi nga xam ne nii jot nañ ko am ba noppi léegi nag loolu doonul loo xam ne lépp dafay teew jamono ji dañuy dox wuti ko ndax démb su ma juumul bi may xool liñ jot am ci ay tonni ceeb mu ngi mu ngi toon toll ci ay cent cent six ginnaaw bi nag fii nii am na ko joxewaat cinq tonnes kon mën nañoo dem ci cent onze cent onze tonnes ceeb lañ am satisfaire leen rek faaw nga am 150 tonnes kon loolu mooy loolu mooy tolluwaay bi kon jàpp na ne daaw bi ñu defee ko social ramadan ba noppi li ñu ci defoon lépp ñu ngi toll ci 85 millions kon ren jii jot naa ne dana ëpp 85 millions allah. kanam moom bi bi ñu tàmbalee réalisation bi njëkk def ci seenu liggéey mooy wàllu santé muy poste santé bi nga xam ne moom lañ def Lansar boobaa léegi boo xoolee li Touba Ca Kanam def ci ay ay poste santé jamono jii ñu ngi toll ci 10 postes santé. am na ci ñaar yoo xam ne sax ministère de la santé def na ko centre de santé léegi léegi nag euh, bis bi nga xam ne moom lañuy ñuy def lancement bi dañ koy bëgg a ak waxtaan woo xam ne dana dëkkaleek dana lëkkaloo ak ni nit ñi dundee ndax dañuy wax naan euh, fagaru moo gën faju boo gisee daaw ñu ngi fi indi woon docteur Khadim Bamba Diagne ngir muy waxtaanee nit ki naka lay def ba génn ci ci ak ñàkk dugg ci am xam nga boo seetloo nit ñi léeg-léegi am koy dimbali dara maan la yàlla nga ko yàgg def kon kooku defut ci boppam ne war naa mën a génn ci lii moom bokk ci ñu koy ñu koy joxe moom loolu moo taxoon ñu buut koo xam ne doon na ci waxtaan muy docteur Khadim Bamba Diagne ren jii tamit dañoo gis ne tawat yi dafa bari ci dëkk bi wàllu insuffisance rénale fan yee maa ngi doon waxtaan ak waa centre ba daanaka chaque semaine lu mat juróomi nit yu yees danañ amee jàngoro jooju wàllu cancer noonu wàllu hypertension noonu wàllu diabète noonu ak yeneen maladie yu bëri yi te nit ñi fii lu ci bëri buñ tawatee bala ñoo dem ci kër docteur daanaka dañuy dem ba tawat ji mat mat leen boo xoolee itam nit ñi xàmmeewuñ tawat ji war a dem ci case de santé bu war a dem poste de santé ak bu war a dem centre de santé ak war a dem hôpital te pyramide sanitaire yi dafa am nuñ ko tëralee tawat ji bu la dalee fii nga war a dem bu la dalee fii nga war a dem ngir sensibiliser nag askan wi ak ñaax leen ngir tawat yooyu ñu mën koo moytu moo waraloon ñu waxtaanoon ak soxna Ndeye Maguette Diop euh, chef de district bi mu ànd ak docteur Fall ak euh, docteur Lo madame Lo ak docteur Ñing ñu ñëwoon pour waxtaan ak askan wi man leen a sensibiliser ngir ñu xam tawat yi lan moo koy joxe ak nan lañ koy moytoo ak bu la tawat daawee tamit nan ngay def ba man koo saafara léegi nag bu ñu defee waxtaan bi ba noppi dañuy ànd ak sëriñ bi dem ci magasin yi nga xam ne nii moom la ñuy séddalee bu ko tàmbali séddale bi kon ñi ngi ñaax mboolem koo xam ne nii jotoon naa dugal alalam ci ci mbir mi ñu ngi koy sant te di ko gërëm te ñaan sunu borom nangul ko ko ci mbaaxu sëriñ bi di soññe nag ñi xam ne jot ñoo na ñëw nga xam ne liggéey bi tàmbali na waaye luy wëy di dem la loo xam ne at mi yëpp lañuy topp waaye rawatina ci biir koor bi. naa bi ñu ko tàmbalee ba léegi chaque année nii ngeen ci teewee kon ñu ngi leen di sant bu baax te di leen jaajëfal tey ñaan ngeen gën a jàpp ci wàllu communication bi ndax ñu bëri xam nañ Touba ci kanam bi mu réalisé ci ñaar téeméer yi waaye des na ñoo xam commission sociale bi lan moo ko tax a jóg ak ci lan lay dox te ni nga xamee ne Touba ci kanam bu amutoon ci Touba dana xaw a gën a doy waar waaye commission sociale tamit bu amutoon ci biir Touba ci kanam dana dana dana yéeme lool kon ñi ngi ñaan ngeen gën cee jàpp ci wàllu communication bi ndax liñ ciy def lépp mooy dàq ci gërëmu sëñ bi ak euh, bëgg dàq ci ak bëggam te loolu nag ki mi ngi ciy dalal suñu xel jamono ji nekk waxtu wu ñu wootee rek moo ci bokk ci ñi nga xam ne ñooy njëkk a jug kon ñu ngi ñaan suñu borom defal ñu nangul ñu lépp te yàlla buñ ci gis suñu bopp te yàlla nañ ci dasee gërëm sëriñ bi ak tawfeexam di leen sant bu baax di leen jaajëfal bu baax